danaa yónnee sëñ Isaaxa mu ñëw xam naa sa digganteek ak saaxa xam naa diggante président Ablaye Wade ak sëñ Isaaxa mu ñëw dox si ko sëñ Isaaxa bi mu ñëwee dakaar woo na ma ba ma woowee ni ma mi ngi dem si président Wade su ñëwee dana ma su fa jógee daanu gisee ba mu demee si président Ablaye Wade mu waxtaan ak moom président Ablaye Wade nekk man de ndigalu sëñ bi dama koy jëfe si saa si rawatina ma dikkee sama rakk la sama xarit la ni que damay waxanteek moom léegi woo ko sa kanam ba nga xam ni jëfe naa ndigal la président Abdoulaye moo jël téléphone ni nan ma woo ni jox ma ko man ma ma dikkee wax naa sëñ Isaaxa ni rakk jooju nga xam ni yàlla joxuma ko woon démb rakk jooj laa la jàppe tey ba fii nu toll am na nu ndigal nag ndigal li pare naa jëfe ko ma ni ko man maa gën pare jëfe ko ma ni ko wax naa sëriñ bi nii kër gi nga xam dama la ko féetale woon ba nga fa génnee ba tey teguma fa tànk ndax man dama la ko féete ndax lu tax mënoon naa yàkkamti comme ñeneen ñi dem jëli caabi wala jëm seet lu may def sama kër waaye fi nga ma àgg ak fi nga ma toll moo tax ma jël kër ga bàyyi ko ba fii nu toll te kër gaa ngi sa disposition ni que nag nang ma jàppe jàppe naa la lu ko raw ndax man mag laa la jàppe kilifa laa la jàppe hmm. loolu laa nettali sëñ bi sëñ bi rafetlu ko ñu jàpp bés ma dem seeti ko léegi bi ma ko nettalee sëñ bi dama ko sant gërëm ka wax ni ko mbake yàgg naa la wax te du jamono yi yëpp booba doonaguloon booba sëñ Saaliwu mu ngi dund di doon xalif général yàgg naa ko sëñ Muntaxa man de li ma gis si yow yàlla dafa def nga doon jëmm joo xam ni da ngay dalal xelu taalibe di seral seen xol looloo tax ma ni que bi nga ñëwee Masalik ak Masalik nu mu bindoo këru diine yëpp daje. nga jubale fa président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ma ne que dama wax ni yow danga doon xéewal boo xam ne yàlla moo la wàcce pour nga defar jaam yi teg leen si yoonu gëm yàlla si yoonu bëgg sëñ tubaa liggéeyal sëñ Touba sëñ bi aussi ni ma moom mi ngi sant ndax lii bëgg-bëggam la te dara si àddina taxul mu def ko lu dul loo xam ni xam na ni mënul ñàkk ndax sama digganteeg président Abdoulaye Wade ñaari jullit lañu ñaari xarit lañu woon. waaye nag aussi di ñaari taalibe yoo xam ni sëñ Tuubaa boole na leen lii laa wax sëriñ bi maa ngi fay soog a yëkkati sama kàddu ba mu amee ba tey maa ngi ko tàmbaleeg sëñ bi sa gàmmu ko kenn dégguma ma wax koroog bi ma jotee seeti sëñ Isaaxa jot président Ablaye Wade kenn dégguma wax ba tey aussi dama noon tant que ñëwuma si moom ba nettali ko yëpp ba pare gërëm ko sant ko sama kàddu du jib xam nga dama leen di fàttali ni sëñ bi daf ma wax ni ma dara si politique defu ma àgg na sax ni ma man àddina dara ñoruma si lu dul jaamu yàlla am ngërëmal sëñ Tuubaa kon man dara si politique taxul ma def ko moo tax ba ma fay dem man képp ma jël sama oto dawal ko ànduma kenn ma dem seeti ko ba ma dee seeti ko ñu waxtaan moom si président Abdoulaye Wade bi ma jotee si téléphone moo ma waxal si laa mi boppam si kanamu is sëñ Isaaxa ne ma kaay nu gisee te amul benn condition politique amul benn condition politique ni ñu ko sëñ bi waxee kon dara si politique doxul sama diggante ak moom li dox sama diggante ak moom moo doon rakk joo xam ne dafa amoon réeroo ak magam mu dem seeti ko mu dem euh, saafoonteeg moom si ndigal loo xam ne sëñ Muntaxa moo ko jox bu leen fàtte ni maa ngi yëngatu si biir la grande alliance ñu bokk kaak Idrissa bokk ak Malick gàkku bokk ak Cheikh Adjibou Soumaré bokk ak Pape Diop ak Issa Sall te la grande alliance boobu ña fa nekk yëpp ay nit ñoo xam ne Sénégal rek a leen ñor ak njëriñu Sénégal loolu tax ñu daje bu leen fàtte ni gannaaw élection yi si sama coobare man maa fexe ba dajale candidats yëpp ñu tudde woon les quatre candidats donc loolu yëpp ay pexe la yoo xam ni maa ngi koy def pour fexe ñu ànd di diisoo pour njëriñu réew mi. man maa ngi si tànk yooyu loolu mooy sama tànk te loolu lay dëggal. mbiru Njaañ bi ñuy jeexal ko xam nga mbiru Njaañ nee naa tey mënoon nañ ko saafara su fekkoon ni jëfee nañu man li ma leen wax ndax kat président Macky Sall su ko yàlla mayee ndam teew waroon na seet ñun projet de société yi ñu joxe lan moo si amal njariñ Sénégal. mu appliqué ko man sax gis naa yoo xam ne doon naa ko wax si projet de société gis naa ni ñu ngi koy appliqué dégg naa moom mu wax ni dana ko jëfee waaye mbi mbirum taxawal benn ministère bu rëy boo xam ni day dox si mbirum diine walla benn haut conseil chargé des affaires du culte boo xam ne mbirum diine lay dox loolu suñ ko defoon tey du am réeroo. waaw conseil du culte au conseil oui au conseil chargé des affaires religieuses ni ko Idrissa waxoon man ministère laa bëggoon ndax ministère bi li ma bëgg moo doon du yem rek si xool ak ñoom nan la ñu war jàngalee xam nga bis bi ne nga dégg réeroo bu am diggante nguur gi nga xam ne dafa bëgg jëfe yoon ak metre coranique yi su fekkee ni man layool naa ba tàyyi maître coranique kur mas jàpp rek maa la daan layool ndax booba danoo dem si sëñ Saaliw wala nu dem si sëñ Basiiru mu sëñ Fàllu mu yebal leen si man layal naa leen ba tàyyi moo tax ma xamoon ni il faut nécessairement nguur gi di waxtaan ak ñoom nguur gi di leen yee si àddina doxalinu àddina ak lan moo war si doxalinu àddina yooyu yëpp suñ ko defee kon doonunu am benn jafe-jafe kon tey eh, eh, réero bi ndax ñooñu kat mën naa waat ni li que nit ñi di tuddee doonu lool de bi ma nekk avocat danaa xam le nekkul ñoo xam ni danoo soxore xaleel déedéet nekkul ñoo xam dañu bëgg jël xaleel di ko def jaam déedéet danu doon ñoo xam ni yaakaar na ni xale bi lii lan kay def mu mu barkeel arxuraan ji ma mu barkeel ko ëllëg mu man ka jariñoo man bëri na ay kilifa diine yoo xam dañ lay wax ni la àgg nañu fii nii lañ leen jàngalee waaye nag jamono day dox war nañu man waxtaan ni ko sëñ mu Mountakha waxee nee na war nañu man waxtaan ak këru diine yëpp jébbal nguur gi loo xam ne dana ko jafe su fekkoon nag am na ministère boo xam ni day toppatoo mbirum diine dana yomb moom mooy nekk seen diggante ak état bu leen fàtte ni yomb moom foofu waxoon naan si biir njàngum alxuraan bi dama doon waxtaan ak kër kilifa diine yi si biir njàng mi ñu boole si njàngu métier ba nit ki su jàngee alxuraan ba ni ar su jàngee métier boole si ëllëg dana am nu mu jëfandikoo ba liggéey te loolu dana am njariñ dana am njariñ si moom loolu yëpp ay proposition yu ñu defoon la waaye nag jot na gouvernement bi waxtaan ak kilifa diine yi ak maître koraani gi ñu fexe nañ leen ko jëfe waaye jël nit arrêté ko tëj ko jël waajur yo tëj ko ñooñu yeewuloo leen si àddina parce que ñoom li noo def gëmunu benn yoon ni lu bon la wala gëmunu benn yoon ni danoo gaañ xale bi lu nu gëm mooy ni lii li noo def dafay jariñ xariñ ba ëllëg ndax kat bëri na tey ñoo xam ni fii am nañ cër su dee diine ci su dee su dee mu jëm aussi si cëru àddina si cëru àddina àgg na noog ñoom foofu ñoom loolu rek lañ koy gëmee yow nag fexe leen ba wax leen ni leen am na neneen nun koy defee noo xam ne mooy gën dëppook jamono am njàngale mi xeneen beneen xeetu jàngale boo xam ne mooy dëppook jamono su la ko nanguloo benn erreur du am parce que jamono mooy dox jamono gee dox nag il faut nguur gi fexe ba dugal ko si biir si biir diine ji te du yàq dara si diine ji lépp lu dëppook diine ñu mën ko jëfal ñu mën ko jëfee